jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte kontante ci ànd bi nga xamante ni saa su nekk yéen a ngi ànd ak programme bi euh, di fas yéene ñëw ak yéen ci seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck ngeen si àndal samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Adama Diallo moo nekk ci wàllu technique bi ñuy nuyu euh, personnelu rajo Rewmi FM yépp ak euh, sunu mbokk auditeurs yeeg euh, sunu mbokk auditrices yi mbokk yi nag euh, tey seen émission pencum réew mi dafa daal di invité nag El Hadji Malick laat Lat mu nekk ancien député mu dëkk nag laat Mbengue ci département bu Kaolack jamono ji nag mu bokk ci mouvance présidentielle nekk na tamit conseil spécial ci au conseil des collectivités territoriales El Hadji Malick Gueye Lat Mbengue Rewmi FM ma ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax euh, di am mbégte di am kontaan ci dal bi nga ñu dalal tey euh, di leen siyaare ci weeru màgg bi nga xam ne moom lañ dajee muy ramadanul muharram mi saarul karim mhm. saarul lazi unsila fil quran hudan wa rahma lil alamin mhm. ñu ngi leen ci ndokkeel li ci ndokkeel waa réew mi yëpp mhm. di ci nuyu waa rajo bi waa journal bi di ci ñaan yàlla may leen ci yéen itam ndam lépp loo xam ne ci àddina yi ni koy bëgg ci rajo bi rek bugg ci sournal bi dugg seen activité yan na ko yàlla def ci barke weeru koor bi ñu dajee ak yéen jërëjëf euh, nuyoo bi man na matale na El Hadji Malick Guèye Laat euh, Mbengue waxtaan wi nag dañu koy daal door rek li nga xamante ni moom mooy euh, woppi coronavirus ji mm-hmm. xam nga ne li fi jaar lépp jàll na bëri na ci ay état d'urgence coow li nga xamante ni am na tamit ci mbirum coronavirus bëri na lool dinañu si daal di waxtaan laaj bu njëkk bi mooy jàngoro jàngoroy coronavirus gis nañ ne jamono jii ñu tombee nii nii bu dee dee yi ma ngi yokk wopp ji tamit ma ngi gën di yokk kaa communautaire yi tamit di gën di yokk lan moo ci sa xalaat. merci monsieur Seck euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko fi indi li nga ma laaj moom mi nga xam ne xaadiru moom mooy dogal lu ko neex ak fu ko neex yàlla moom nga xam ne moo ko fi indi ñu ñaan ci euh, ma xam weeru koor bi nga xam ne tolloon na ci mu weeru ñaan ñaan yàlla jëlee ko fi d'abord. Euh, di nuyu bu baax euh, bépp doomu sénégalais bi nga xam ne yaa ngi déglu ñu yaa ngi déglu fii ci Rewmi FM euh, wàllu coronavirus bi li ma ci gis rek mooy mbir la moo xam ne mm, gàcce ngalaama président Macky bi nga xam ne wàcc na Sénégal ñëw na Sénégal jaar na feneen ci réew yu bari waaye la def na bi nga xamee ne ñëw na Sénégal gis nañ compétence bi mu ci wane gis nañ capacité ak vision bi mu ci wane ba tax na na muy defee yeneen réew yi nga xam ne ay réew yu mag lañ fa mu jaar nga xam ne fa lañ doon xellee xam-xam ci réew yooyu fa lañ doon yaakaaree man-man ak am-am waaye yaakaar naa ne tolof tolof ba nga xam ne ñooñu moom lañ ci jëlee ak sigul ci ñun ñaanu yàlla mu agsi ci ñun président jëlee ko ci mbir moo xam ne mbir mu sérieux la da ko teg ndeysaan euh, ku ko xool rek nga xam ne mbir mi dundu na ko ci jëmmam dund na ko ci ci ci léppam ndax euh, jël na lépp luy matukaay euh, ak lépp lu war mu teg ko ci kanamam pour sauver senegal pour sauver doomu Sénégal loolu taxoon senegal yi fal ko lii ñëw di mbetteel mbetti ñëpp muy feebar bu bon boo xam ne fi mu jaar yëpp yàq-yàq yi métti na fer bu ñu ne mu ngi bugg a àgg ci million yu mu yu mu faagaagal. mais yan jéego la président teg ba nga jàpp ne ni mu faagaagale yeneen réew. faagaageelu ko réew mii di senegal lépp jéego boo xam ne dina tax mu bañ a màgg ci réew mi dina tax mu jeex ci réew mi rek jéego boo ci natt rek def na ko lim njëkk a def mooy génn ci gafakaam ci gafak réew mi alal ju bare bare bare fàtte lépp suur lépp jox jox ko bopp rek moom kott moom rek moom dong ba mun naa wax ne yenu na ay responsabilités yu bari ci fonction yu bari ci place yu bari ci mbir yu bari renk rek pour ñëpp joxante loxo mun a xeex li nga xam ne mooy bugg bëgg bi loolu doyoon na sëkk maanaam yow yow sa bopp yow jàpp nga ne gis nga ne fépp loo xam ne mu ngi yëngatu ci Sénégal rek dugal na fa loxoom ngir lan dugal na fa loxoom ngir ña ca ne ak ña fa nekk jël matukaay bi loolu muy alal ju bari ju nit mëntu lim ci façon bu ne tey gis nga. mais mais ñeen ñenn ñi dañoo njort ne lu demee ni frontières yi ak aéroports yi dañ ko yéex a tëj. waaye xam nga euh, ñooñu mën nañoo wax loolu rek parce que doomu aadama moom xam nga lu mbir bu mbir ñëwee te xamuñ nu mu ñëwee betti ñëpp euh, ñi ñëw gis-gis ak ñi wax di xarab mën nañoo waxee beneen façon gis-gis bu bokkut ak li nga xam ne moo nekk waaye li am mooy ni Sénégal Sénégal dafa nekk benn pays bu doy waar ci pays ci pays yu raison bi Sénégal bi ñu ko jàppee comme yeneen réew yi Sénégal dëkk bi moo moo nekk dëkk boo xam ne yàlla moo wàccee ci Sénégal lu baree baree bari yu yaatu Sénégal dëkk bu tuuti la ci ci tudd ci gis waaye dëkk bu mag la ci dimension euh, ba tax na euh, li am solo rek mooy bi nga xamee ne ñëw na mbas mi ñëw na euh, woo na ci bépp doomu sénégalais muy opposant muy koo mën a doon ak métier ba mën a bokk woo na ñëpp ne lañ toog pencoo li nga xam ne moom lañ bokk ak li nga xam ne sonal na réew yi ñu ëpp doole sax kenn ku nekk am ci xalaat def ko ci am ci xam-xam def ko ci am ci alal def ko ci ngir Sénégal doyee loolu rek doyoon na maanaam euh, tànk boobu rek ak yéene boobu rek ak gis-gis boobu rek doyoon na sëkk ci def mais mais euh, wante màgg màgg màgg bi nga xam ne moom lay màgg jàngoro ji waaw jàngoro ji comme ni ñu ko waxee xam nga euh, jàngoro moom la bett man la lu jaaxal Amérique jaaxal Chine jaaxal feneen jaaxal feneen yaakaar yaakaaroon na sa Sénégal du ko mën a maîtriser comme ni nga ko maîtriser loolu nag vision bu am solo la boo xam ne président de la République may nekk ko te it mu nekk nit koo xam ne moom dafa bëgg ndam ci ñi ko jiite mu nekk nit koo xam ne xol bi dafa rafet ci ñi ko jiite mu nekk tànneef boo xam ne yàlla moo ñu ko tànnal jox ñu ko bu nekkoon ne beneen président jaaru na fi tey bu dul moom ni ko mën a gën a doy waar lu tax waaw parce que. mais mais est-ce que njàmbaar njàmbaarte président wala njàmbaarte askan bi. aussi ok askan wi gàcce ngalaama askan wi gàcce ngalaama waaye nag dimbal sa bopp la loo xam ne jombul kenn rusul kenn bañul kenn seexlul kenn kenn riwut ci moom kenn tuutul ci moom lu mel noonu nit am na yaakaar ne euh, buñ ne nañ ànd xeex ku kenn ku nekk matukaay nañ jël matukaay bi matukaay bi nañ fexe ba def ba aw ci yoon bi nga xam ne mooy gis-gis bi nga xam ne moom la monde entier yaakaar uh-huh. ne buñ ko defee kan mën na ñëw mucc d'accord la koy mucculoo ak la koy doxal mm-hmm. kenn ku nekk am sa alal def ko ca bon gàcce ngalama Sénégal am nañ euh, bu baax a baax ah, keroog bi mu defee état d'urgence bi gis nañ mu wax force covid 19 mhm. benn kuréel boo xamante ni tey euh, fi la ñuy dajalee xaalis mhm. xaalis boo xamante ni tey sunu bërëbu fajukaay yi am nañ ci wàll suñu mhm. économie bi nan la ñu koy xoolaat côté bu nekk rek euh, secteur privé bi ak li nga xamante ni tey mooy Sénégal yi nekk bitim réew fii ci biir réew mi lu jëm ci wàllum dund courant bi ak courant ndox mee courant kii bi gis noonu ko répartition bu président def ko lan moo ci sa xalaat yow. waaw rek mooy euh, bu sëlli yooy waaye bu yëngu dem ak neen maanaam bu sëlli bi yooy waaye bu yëngu dem ak neen kenn ku nekk rek na fexe gis boppam ba fexe it nga am loo xam ne sa loxo dana tax nga gën a mën a jàpp ba xeex bii ñu man ko fagal nga génne ko senegal kenn ku nekk lépp lu ci war def na ko wax nga dëgg def na ko ci courant bi def na ko ci ndox mi. Euh, def na ko ci même si euh, comment dirais-je suñu mbokk yi nekk. Euh, diaspora bi diaspora bi. def na ko ci fépp ah def na ko fépp même ba ci àll bi ba ci nit ñi ba ci dund nit ñi lu ci nekk rek gën nañ som boo xam ne teg ko fa muy alal ju bari. d'accord yoo xam ne pour nit ñi mën koo oh, oh. fexe ba jànkuwante ak coono boobu ba ah. ba. ba la nga xam ne moo ci loreef du bëri ci ñoom. d'accord xam nga tey président loolu mu force Covid 19 bi. Hmm. am na ñoo xamante ni tey lañu ñu leen war a dimbalee. Hmm. amaana jot nañu si. Hmm. mais ñi nga xamante ni tey ñooy askan wi. Mm-hmm. ñoo waroon a jël dund yóbbul leen. Mm-hmm. am na si ñu bari ñoo xamante ni ba léegi nii. Mm-hmm. jotaguñ jotaguñ ci dund googu maanaam dafa yeex ok waaw xam nga euh, mbaam mu yéex mbaam mu gaaw indi sëf mbaam mu yéex indi sëf moo gën xam nga lu la bett lu demee ni kii comme ni fer bi demee nga nga taxaw ci ay waxtu yu gàtt ay fan yu gàtt fexe ba nga xam ne dëkk sa nga alal ju toll ni ji nga génnee. ci Sénégal ni mu mel. mais Sénégal yi dañoo participer aussi. participer nañ ci bu baax a baax waaye nag bul fàtte ne amul hmm. dara loo xam ne parce que nañ ko loo xam ne fii la am. lu ci hmm. nekk bitim réew lay bay ko. Hmm. li ki nekk bitim réew lay bay ko erreur la si réew mi. ah ah non wa ceeb bi bu doon ceeb bi ah, fi ndax yéen yéen a ne fi yéen. Euh, lépp ñu ngi ci yoon bi. ñu ngi ci yoon bi xanaa day comme na ma la njëkk a wax rek lay ñëwaat lu la bett rek da man euh, moom mën nañ ñu sax lu tax mënuñ ko mooy Euh, lépp loo xam ne warugar la ci fan ci côté bu nekk rek muy yéen même yéen journalistes yi sax génne ji yëkkati na milliard teg ko ci seen loxo pour média bi hmm. rek rek bon amul fu mu amul lu mu deful amul fu mu deful si que nag euh, séddale nag moo jafee yàlla sax bi mu séddale ba pare am na ñoo xam ne jombul kontaan nañu. waaw mais mais El Hadj Malick tey presse euh, ñi nga xamante ni tey waaye nag wàllu ndund mi. waaw moom mu ngi dem nag. waa mais ndund bi même bu dee ma ngi dem. waaw ñu baree baree bari. Hmm. dañ koo ñaawlu. Hmm. li tax ñu ñaawlu ko. mooy bourse familiale yi. ñu hmm. ko jaarale. niñ ko jaarale. Hmm. te ñëpp. Hmm. xamoon ne yenn gox yi. dañ ko fay jox kuy jàppale Macky Sall. politique mu koy jox ay nit politique. boo fu bëggee jaarale dund ki tamit la sa des nga bëgg koo séddale ña des loolu tamit day poser problème. nangu naa loolu loolu loolu nangu naa ko man yaakaaroon naa ne euh, am na sa benn benn xalaat boo xam ne man dama noonu sa est-ce que moo doon gën. muy ban moom président li mu génnee ci alal mu fexeel ñu wàññi dund bi. Hmm, bu baax a ko a hmm. ceeb masalan bi jar vingt mille wala vingt quelques euh, hmm. euh, diwlin bi jar cinq nga xam ne cinq ñu fexe jaayee ko deux mille dama yaakaaroon ne man façon boobu man moo gënoon a pratique te moo gënoon a gaaw ñu bari loolu lañ xalaat waaw gënoon a gaaw comme ni ñu ko defee wante nag néanmoins euh, comme que jël na matière bi nga xam ne matière bu ñëpp wóolu la muy soldat si dénk ko ah, ñi nga xam ni da am lu baat bu am solo boo wax mooy waat bu wàllu bourse yi wàllu bourse yi am na ci côté yu bëri politique la man nangu naa ko te xam naa ko mhm. nangu naa ko te xam naa ko mhm. parce que man euh, def naa ci ay ay ay ay sondage mhm. dem naa ci ay kër yoo xam ne fekk naa fa lu mat juróomi nit yu am bourse wala ñi ñetti nit ah ñi nit nga romb koo xam ne amul dara amul dara amul dara ok léegi kër gi nga xam da nga ko jox maanaam bourse bi am na ci ñett ñetti bourse ñeent ci biir biir kër gi kooku nga jëkkati ko jox ko ne ñaari saako ceeb wala ñun parce que mocci tonne dina dugg ci kër googu. nga romb kër goo xam ne doo am sa benn kilo. Ah? te it encore xam nga loolu euh, mbir la moo xam ne tag tag bu bon la. man man façon boobu ànduma ci. àndu critiqué naa ko nanguwuma ko. Ah. parce que gis naa ne lim ci bëggoon moom président. ah lim ci bëggoon mën na ko gën a amee ci beneen façon bu gën a baax. d' accord mais mais tamit dañ ci waroon a génne lépp luy maire. d' accord ah. mm-hmm. lépp luy maire waru coono bokk. lépp luy maire waru coono bokk parce que maire bi moom. xam nga rek ñoom luñ tëgg rax ca përëm ah hmm. politicien moom lu mu tëgg ñaari li ci ëpp dañu ci rax përëm li ma li ma doon d'accord ñu jàlle ko ci beneen yoon comme imam yi comme euh, jeunesse bi hmm, comme waaw association yi xoolal ñooñu nga xam ne imam bi lu mu bon bon moom la ñu teg ci kanam. Mm-hmm. toujours di ko seete yàlla. di mm-hmm. xaar ci moom yàlla. Mm-hmm. imam boobu ragal naa ne xam ne ki dëkk bi. Euh, ñi ko ayoo ak ñi ko ayewul. dëgg la imam bi sax ñu dëkk si koñ bi dañuy faral di ñëw di jàmbat imam bi ngir mu leen di ñaanal ndimbal si jumaa ji jàkka yi. ok merci nañuy waxtaan. boobaa imam bi jaaroon ci façon yooyu daal ndi ko ragal naa doon na gën a pratique doon na gën a baax doon a ba tey it Euh, maanaam dara wéyagul dara wéyagul parce que moom koy déglu xel at la te it encore teg nañ ci ay conditions yu doy waar yoo xam ne képp koo xam ne jaar nga ci yoon boo xam ne war ci jaar yaakaar naa ne doo ci jëlee. d' accord mais xam nga tamit euh, El Hadj Malick Gueye Laan mm. Mbengue mm. dafa am benn taxawaay boo xamante ni tey. Mm. Euh, man jàpp naa ne askanu Sénégal nangul nañ ko président Macky Sall. ndax bi mu wootee. ñëpp a dem ñëpp ko wuy ji. su waxee sénégalais yi. di ko déglu. Euh, li nga xamante ni nag moo jëm ci marché yi. Mm-hmm. ceeb bi mm-hmm. ak diwlin gi ak suukar si. Mm-hmm. dégg naa sax am na benn commerçant bu mag. bu nekk fii. la nga xamante ni moom la santaane woon. ne da koy indi ci ceeb. ak suukar mataliwu ko. ñenn ñi jàpp ne ay looxoor ak tojaange dafa am ci marché yi. ni nga xam ne moom la ko Mansour Faye doxalee. ak Diop si marché yi nga xamante ni moo jëm ci mbirum transport. est-ce que lu mel noonu président Macky Sall. mënu ko woon a moytu ndax keroog ba muy def déclaration mm-hmm. dafa waxoon ab comité de pilotage mm-hmm. avant muy séddale marché yi ak lu mu mm-hmm. jamp-jamp manoon nanguloon nañ ko vingt quatre heures comité de pilotage boo xam ne kenn ku nekk dana sa dugal loxoom su ko defee jàmm na ñooy. mais man gis naa ne depuis que euh, ñu tàmbalee ŋàññi marché yooyu gis nañ ne ak féewaloo commencé na am ci mbir mi. waaw tontu bi ma lay jox ci loolu rek mooy dafa am génn góor gu buggoon a jàngal doomam jamono. ji ne ko tey dama bëgg nga xam àddina nga dégg àddina àddina bon man ko kenn mënu ko mu xëy ànd ak moom ñu war benn mbaam ñoom ñaar bokk mbaam yi bi ñu demee ba ci ab dëkk mhm. ñu ne waaw ñi ñoo ñàkk kenn mëntu wàcc jox kenn ku mu war mhm. ñu demaat bu jubaat beneen dëkk mhm. doom ji war baay ji dox ji moo ñàkk xel pourquoi mëntu wàcc jox baay ji ñu demaat beneen bi ci beneen dëkk baay ji war doom ji dox ñu ne waaye kii moo ñàkk xel mëntu jox doom ji mu dox ñu demaat ba jub beneen dëkk ñu wàcc mbaam bi kenn warut ko dàq ko noonu dem ñu ne ñi ñoo ñàkk xel mënuñoo bokk mbaam mi war ko mhm. maanaam loolu mooy tontu bi ma lay jox ci loolu maanaam koo tànn it tànn moo jëfee tànn moo jëfee tànn yombul mhm. euh, jombul sa mën naa ñàkk njuumte mhm. waaye xam nga bu nekkee ne lépp lu ñëw dañ ciy dugal politique ñiy tontu duñu wax dëgg politique la ñuy waxee ñi nga xam ne maanaam ay ay ay noonu Macky Sall lañ façon boobu dañuy wax wala noonu président dafa am ñoo xam ne ba léegi joxuñ aqul li xew aqam xamuñ sa xew lan la yaakaar mooy ñi nga xam ne dañuy ñi xam ne ñoom dañuy critique rek xam nga noon bi moom booy fecc ci biir ndox sa mën a pënd ba nga may gaañ noon boo demee ba ci biir géej nga di ci fecc xam nga pënd moom <laughs> du génnee ci géej du génnee ci ndox mm-hmm. waaye noon ba moom pënd lay gis ci yow mais mais li mën a wax rek mooy séddale boobu Mansour Faye def. mais Mansour Faye nag mën nañ def comité de pilotage. dëgg la dëgg la mënoon naa am. Mm-hmm. Euh, te comme neex tamit comme neex. El Hadj koo xam ne. Mm-hmm. wala sax mën nañ cee boole ñoo xam ne. Mm-hmm. ñoom seen bëri de leen lépp loo xam ne gis nañ du dëgg dañ koy wax. waaw daa xam nga tey waaye bu nekkee nit kii encore da nga jël ñoo xam ne say waaye lañ say xarit lañ it ci mbir mu ne mun naa mu sooxe. xam nga tey waaye yaakaar naa ne nag situation bi loolu dugg ci. waa xam nga tey. soo xoolee comité de suivi bi. ñoo ngi fa teg François géné euh, euh, euh, général mhm. François Ndiaye. Mm, François Ndiaye dëgg la. mais mbiru politique. Mhm. am nga sànq yaa ngi wax ne politicien lu ñu tëgg rax ci përëm. Mhm. mais politique ci réew mi moom. man jàpp naa ne kenn jiituwu si président Macky Sall. moom nga xamante ni tey lu muy def day politique. kii Mansour Faye. ñenn ñi tamit am nañ sañ-sañ. am xalaat. kane président Macky Sall dafa jël Mansour fay exposé ko di ko mm. defal communication mm. di ko wan sénégalais yi di ko non seulement sax pour ëllëg ndax fi ne mm. tey fu Mansour fay dem da dégg ñu ko jërëjëf Mansour Faye fu mu demul tey fi mu ne nii ci Sénégal amut am na possibilité quarante cinq départements am na accès fépp ba pare mënoo xëy déggoo turu Mansour fay ci press bi est-ce que loolu tamit ñiy politique bu leen neexee du ñu xalaat ne président Macky Sall dafa jël Mansour fay ngir teg ko ci kanam amal ko visibilité waaw li ma ci tontu ki loolu mooy ndénkaane moom ka nga wóolu xam nga xel bi nga ko doon jaay ci marché bi dafay lamb ndax ni kon kenn ku nekk danaan suma bës doy na ma moo tax àddina moo mel noonu euh, su Faye bu nekkee moom la wóolu ni ku nekk ka nga wóolu. d'accord euh, léegi nag euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni tey mooy comité de suivi boobu noonu. waaw comité de suivi bi. Hmm. général François Ndiaye. Hmm. ñëpp xam. Hmm. taxawaay am jaloore bi mu def. Mm. bokk si ñi nga xamante ni mën nañ leen a tuddee ay patrimoine national. Mm, mm. ku mel noonu sax jël nga ko dugal ko ci ay nit ñoo xam ne. Mm-hmm. lu ñu tëgg rax si përëm. ay politiciens. waaw te comité de suivi boobu gis naa ne front national de résistance génn nañ ci. Mm-hmm. Habib si démissionné na. Mm-hmm. coowul per jëm. cent document boo xamante ne cent sept millions la. coow loolu noonu noo ko gisee yow. li mu gisee mooy. foofu dama fa dama fa dama fa dama fa ànd ak Habib Sy d'une part. Mhm. beneen part rek ànduma ak moom. boo ànd ak moom. bi ma ànd ak moom mooy wane na am na ngërëm moom parce que wane na ne liggéey réewam la bëgg. Mhm. am na xolu liggéey réewam. Mhm. wane na ne encore li xew ñun ñëpp kenn ku nekk da nga war a fàtte sa bëgg-bëgg dem ci. waaye nag euh, bu mu fàtte ne séddale amul cër. dégg nga de. séddale bi amee cër da nga gis ko lekkul wàllam. mun na am moom toog na ci loo xam ne war naa mën a muñ loolu moom na muñ bësam te bàyyi ko te bàyyi keneen ku soxla jël parce que mun na am moom ni mën a muñee keneen mënu ko muñee te nag ah, di séddale dépasse sa kër toggoon añu neexut moom bu mu fàtte ne bi ko yàlla joxe moom lu tar moom mu mën a mën a bare yow ànd nga si per jëm bi per jëm bi d'une part ànd naa ci ndax nit ki ku ko liggéey loo war koo fay ñu ngi ko liggéeyloo encore. ci ci situation bi. waaw situation bi wax naa la ci gannaaw ne la koo xam ne mën nga maanaam abis li ñu def dama ko ci gërëm din paar. Hmm. paar boobu nag moom laa moom laa ci àndee. waaye àndewu ma ci koo xam ne yow xam nga ne. am nga hmm. beneen salaire ba pare. Hmm. am nga beneen salaire ba pare. wax dëgg la may la beneen salaire ñi nekk ñëpp léegi est-ce que xam nga ne ñoom ñëpp kenn ci nekk am nga salaire boo. xam ne soo xooloon xaalis boobu ñu leen bëggoon a jox per jëm. journaliste yi seen kuréel bi nga xamante ni sax euh, la yàlla xam doy na participer nañ si Mhm. ab sénégalais bu jël deux mille francs boo xoolee liste bi am na ko participer ñaar téeméer waaw wala téeméer sax te tey ah. Ah. yow war ngaa d'accord ñi ñuy déglu war nañoo d'accord ne mhm. trente personnalités yi nga xamante ne ñoo dem ci comité de suivi bi mhm. même su dee yaa leen tuddee personnalité même su dee yaa leen tuddee yaa leen tuddee maa leen tuddee personnalité waaye mun na am duñu ko duñu ko même personnalité personnalité du maanaam du sant d'accord mais mais dama ne mais dama ne du diplôme waaw dama ne jikko la waaw dama ne ñi ma liir liste boobu. Mm. trente personnes yi. Mm. kenn ku nekk am secteur boo fay représenté. Mm. moo xam mairie yi la. war nañu mën a suur. moo xam patronat bi la. moo xam presse bi la moo xam seen yi la. jàngalekat yi wala transporteurs yi. ñooñu gaw ma ne am nañu ay bien vrai que mën naa am ay charge tege seen kaw. waaw waaye nag ñàkkuñu ba mën a ñàkkuñu ba. war a mën a wala seen seen xalaat seen xel mën a nangu ci di jël per jëm. 3 millions 500. ci crise boo xamante ni tey ñëpp nga dajale ñaat téeméer ñëpp a ngay dajale te yow ëppale nga nga am ñoo xam ne li nga wax ànd naa ci bu rafet moo tax man la d'une part ndax jombut wax dëgg yàlla def na moom yëf yi patriote mhm. def na yëf yi nit ku baax mhm. nit ku bugg sa réew nit ku participer euh, maanaam ci situation boo xam ne xew nañ sa réew say doomu réew nga walanteeru joxe sa bopp mhm. kooku moom am na ci am na ci am na ci am na ci kenn ku ci kenn ku ci ñeneen ñi nag ñeneen ñi nag xam nga moo tax la ma la njëkk a wax mooy personnalité euh, ak bëggee bu ñu ko fàttee personnalité euh, du <laughs> du ancien ministre wala ancien directeur <laughs> personnalité jikko la parce que yàlla uh -huh. bi muy tagg Mohamed yëpp te ñun man mooy suñu référence ci jikko rek la ko tagg dafa am ñoo xam ne bu ñu amoon milliar it denc ko si biir kër yi ah uh-huh. dañuy soxla loolu ñoom parce que loolu seen deret la moo tax ñu doon boo gisee euh, état ba mu daan fal nit daan ut enquête de moralité uh-huh. enquête de moralité lu am solo la nag. enquête de moralité boobu état daan ko def. Mhm. Euh, loolu la war loolu la état war di kon toujours. Mhm. parce que dafa am koo xam ne. Mhm. làmmiñ yu fekk na du moom. am koo xam ne am na lu bëri sa fekk na amul xam-xam. am na koo xam ne. xoolal maanaam addina moo laaj jàng addina moo laaj euh, taraar. d'accord maanaam pour nga jiital ay nit. jërëjëf euh, ñoo ngi nuyu Yoro Seck maa lay nuyu. Yoro Seck Yoro Seck maa ngi Thiès. mu ngi Thiès nuyul ma ko baax a baax. a ah, waaye ma bëgg léegi xanaa ñoom de ñoom weeru koor est ñoom est ngi woor normal sax. Ah, ceekeen yi nag moom ñoo ngi. woor nag ah, am na démb laa ku ma dégg ne lekk na ci ñetti mburu ab ceekeen nga jàkkaarlool. <laughs> Euh, mbokk yéen a ngi seen émission pencum réew mi ñu invité nag El Hadj Malick Gueye Lat Mbengue léegi nag ñu wax ci li nga xamante ni tey mooy ñenn ñi sax ay way politique dañ koo tuddee bëxër ñett. Mhm. la Macky Sall def. Mhm. bu njool mi. Mhm. daw ci ay décision yoo xam ne. bi mu siy rocceeku di ci génn. fi la jàngoro ji di gën di lawee. ndax ba muy jël ay décision état d'urgence bi. cas yi toll toon nii. dese amutoon. jamono ji muy génnaan nag ci yoxamal mbir yi mhm. ubbi lépp mhm. kaa yaa ngi augmenté gën yokk dee yaa ngi augmenté mu nekk nag benn incohérence contradiction boo xam ne mhm. ñenn ñi loolu lañ gis yow loo gis waaw ñenn ñi ko gis ñëpp boo leen euh, turugala ma seen tur de wala amut euh, ku ci mel ni euh, Ousmane Sonko noonu la gisee nee na incohérence contradic contradiction xam nga Ousmane Sonko incompétence manque de courage loolu lépp leen wax ah. Ousmane Sonko man euh, dama ne wax ci moom sax yow mu jël fetal di tiire ci ambulance la parce que nit la boo xam ne amul compétence ndeysaan amul expérience ndeysaan xamul xàmmeewul ndeysaan moom xàmmeewul janj joor xamul heure bi ñu war a politique ak heure bi ñu wartu politique ndeysaan en tout cas man dama ko dama ko dama ko su ma sañoon daal dina wut ay ay entroisam bi daal maa leen di man leen di gën a ñaax mhm. ñu gën a waxtaan ak moom heure bi ñu toll gis nga fi ñuy fi ñuy suulee ay niw kenn dafa jàmbatee euh, loxo bi métti wala baaram bi métti na xam heure bu ne heure bu lan la président Macky Sall dafa def lu rafet def lu baax bi lii amee nga xam ne dafa jaaxal monde entier du senegal rek daf leen ne oh ñoom ñëpp ñi ñu bokkal Sénégal xoolal boobu démocratie bu rafet xoolal boobu yéene bu rafet xoolal boobu bokkoo bu rafet xoolal boobu grandeur bu doy waar ne leen. lii de lu fi xew la bett ñépp jaaxal mën du añcee ku nekk nag sa xam-xam soxla nañ ko ca dafa am benn wuykatu arab bu romb benn xale bu lapp ci géej xale bi di ko ye euh, baay ji di ko yedd waaye ji di ko yedd ne ko eh yow mi lab ci géej gi nangam ak di ko xas mu ne ko ey eh, papa ji arrêté wax ji bala nga xas danga may xettali ba mu nekk ci tefes gi ndax ma fu ne taluma digg li ngay wax loolu la Ousmane ko def nit ñi dañoo nekk ci njaqare gu métti ak tiitaange mu mu bëggoon a yokk tiitaange nit ñi loolu. d'accord mais mais attends man gis naa ne am na waa joo xam ne foog ma gërëm ko sant ko tey dana bett ñëpp nag muy Idrissa Seck kenn déggul kàddu dégg naa baat benn benn baat bu ko journaliste yi laaj mu ne leen ndox mi nga xam ne dafay fay lakk ne na jarul ñu di ko. xent xent. xoolal kooku moo dund li xew kooku moo yëg li xew. kooku moo xam li xew. dëgg dëgg la gàcce nga mais bu nekkee ci crise tamit tekkul ne tekkul ne dañoo nekk ci crise dañuy bàyyi Macky Sall def ay tojaange moo waxul de moo waxul de parce que gis mooy xam-xamam ba ko Macky Sall ooyee wax na ko ko ku xam Idriss Seck ku ko xam man dama ko dama ko dama ko sant ci action biir li xew nii tey gé jàngat naa ci nag ne waa ji ndaanaan la jàngat naa ci ne waa ji sang pire la jàngat naa ci ne waa ji bëgg na Sénégal jàngat naa ci ne waa ji borom xam la jàngat naa ci ne waaj am na vision jàngat naa ci ne waa ji moom la ci li xew nii Sonko Idrissa Seck mooy te mooy président de te mooy euh, njiitu opposition yëpp kenn déggul ci Ablaye Wade kenn déggul ci Idrissa Seck moo moo raw ñëpp ci élection yi ba nekk numéro deux bi ko euh, man Sonko li ma ko xarabee rek bi mu amee lu mu bëgg a wax dafa na delluwaat ca président Macky Sall lu mu bind ko nekkul ne yéen tubaab yéen a wax ne bëri na morceau yu tilim di ñu ko raxasee ci mbedd. Mhm. ah. Mhm. ci néeg lañ koy raxasee. su nekkee dafa am xam-xam bu mu xam ci lii te lii jaaxal ñëpp nekk boppu ñëpp tax nit ñi lekkatuñ naanatuñ président woo ko la gënoon mu wax ko loola mu waxee ko foofa su nekkee dafa amaat demaat ba gis ne situation bi changé na am na ay données yoo xam ne war na ko ko mën a wax nam ko ooyoon bu ko Macky Sall gën nam ko ooyee woon moom da ko ko war a wooyee ko président dama la soxla billaahi su ko dama la soxla mën na ko ñëwal suba wala ñëwal léegi. barke alxuraan kooku mën a guñ ci alxuraan ak wéeru koor bi ma ne ndax ku lay oo te te sant ko ko yow soo ko ooyee mu uyu bon sonko yàq rek lay def waaye nag dafa dafa juum ci dafa juum ci débat yi juum na ci te ndeysaan euh, juum na ci juum bu métti senegal yi mere nañ ko lool lool lool lool xam nga jël ay xale di leen di leen gàddul ay salaire yu nekk ci réseaux sociaux di xas nit ñi di attaque nit ñi kooku taxul nga falu senegal Sénégal dafa xam Sénégal réew la réew mi gox bu ne dafa am réalité am Sénégal dafa am réalité boppam foog nga dund réalité bi xam réalité bi mën a xam fa teg tànk waaye gis nga li sëñ Abdoulaye Mbacke waxoon rek muy dëgg noonu nag kaala bu kaala bu njëkkee ci bopp rek mu ji ndigg kaala wartu commencé ci bopp kaala ci ci tànk yi la war a jaar jaar ci ndigg doo dem ci bopp bi man faa yàgg gis nga politique matière la politique du un plus en égal deux politique du diplôme politique du xaalis politique matière la terrain moo lay corriger ñoom xamuñ terrain xamuñ waxtu waxtu lan la xamul ña ko daan wax ci gànnaaw la xamul xamuñ jànj ak joor fi nga xam ne fi leen war a ji gerte ak fi war a ji basi ak fi war a ji suna ak fi war a xoolal wu ñoom suuf soosu te nga bëgg a bay koo ànd da nga koy rey ci erreur rek. waaw léegi yéen El Hadj moo tax Sonko li euh, kuy taxawal rek la yéen fi mu nii ku doon yàq la ndeysaan porte léegi ngeen lu mel ne xamee kenn man man xasuma ko waaw non dama ne amee man sama yàquma euh, ko pour xas ko dama koy critiquer critique boo xam ne dafa tegu ci xam-xam d'accord mais tey El Hadj Malick mm-hmm. yéen parce que man ama soxla ci moom yéen ku wax euh, mm-hmm. xalaatam mm-hmm. ci Macky Sall nag wax dëgg yàlla bi ko Sonko wujjee Sonko li ma dégg am na lum laajoon Macky Sall. Hmm. ñu ne danañ ko si tontu. Hmm. mais tontuñ ko si mais beneen bi. tontooguñ ko ci. waaw tontooguñ ko si mais El Hadj hmm. léegi dañoo nekk ci crise est-ce que dafa tekki. ne Macky Sall dañ koy bàyyi. muy jël ay dogal yoo xamante ni tey. incohérence daf ci am. contradiction euh, contradiction daf ci am. day tekki que ne dañ koy bàyyi muy doxalee nu ko neex. tekkiwul loolu nag wax dëgg yàlla waaye ba tey nag même ci crise lañ nekk ba tey ko neex de parce ma waxuma la day doxale waxuma la day doxalee nu ko neex waxuma la day waaye tamit hmm? crise lañ nekk ndax crise bi bi ñu si nekk Macky Sall dafa jekk-jekk ne dem leen geen dund ji ak vivre bi ak hmm? ak virus bi hmm? mais ci biir biir ni ñuy nekk gérer crise bi tamit nañ dundaale ak di waxaale président Macky Sall bu dee nag ma ngi def ay njuumteeg yooyu ñu ne ko nangam ak sàngam waaye naa nangu naa ndax yàlla moo war a yàlla ci boppam moo ne fii ne sikara mi nii maanaam nit fàttali nit nit ku dund ku ne sa dañ ko di fàttali fàttali am na waaye fàttali maanaam euh, xotteeku xotteeku ak teppeeku teppeeku ak bënn bënn ak fitti fitti du benn déggoo ma de. naa la lépp ci mel ni mbubb mi lay def. Mhm. mbubb mi nga sol dina am xotteeku xotteeku. Mhm. dina am fitti fitti dina am bënn bënn. am teppeeku dina teppeeku teppeeku. Mhm. waaw la ci mbubb mi def tey. dafa am loo xam ne moo moo war a ñuy critiquer koo xam ne boo ko ooyee mu oyu la ñenn ñi mu oo la ñëwoo wala mu oo la yow nga dem wuuji ko mu lay la sa xalaat nga wax ko ko waaye ki oo wax dëgg yàlla kooku am na amagum na cinquante pour cent des points. mais mais mais mais bu moo tax moom bi muy jëlaat ay décision woote waatut bi muy jëlaat ay décision <laughs> yéebaane attends attends mhm. carte blanche la te am lu boo xam ne réew lañ ko dénk nag am na loo xam ne urgent lay nekk te réew lañ ko dénk réew mi ñu ko dénk na de dooloo na la ci xam-xam dooloo ko sa xalaat ah ba tax na dafa am daal man man daal ni ma gisee daal mooy euh, ñoom ñi nga xam ne ñu critique ñëpp euh, maanaam critique bi daal heure bi ñu toll warut jaadul ko koy defit amoo xam-xam pourtant du euh, du Sonko rek Abdoul Mbaye ah. euh, ak ñoom Thierno Alassane Sall oui ma xam nga xam nga xam nga Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall xam nga ñooñu di leen tudd ne ci Macky Sall nag wax dëgg yàlla yow yow ma laaj sax xam nga ne léegi lan moo tax ñooñu oxala oh, xam nga ñooñu bu ñu solantee Macky Sall wàcc nguur gi koo xam ne yow sa yéene yëpp mooy yàqal nit ki ba ñëpp Sénégal yi xam ko koo xam ne xeex nit ki rek mooy sa bëgg-bëgg koo xam ne nit ki ese rek mooy sa bëgg-bëgg xam nga ne kooku nag wax dëgg yàlla yow xam nga ko yow moo koy laaj man xam naa ko ñiy déglu xam nañ ko Abdoul Mbaye xam nga ne moos du du am xalaat bu baax di ko jox Macky Sall parce que ndeysaan euh, Abdou mbay dafa nekkoon ak moom hmm? bi mu nekkee ak moom yàlla def mu mu taqale ko ak moom man su ma doon moom du ma sumbaar parce que gis nga lu ne bakkan la am ànd ba bakkan la woon yàllaa ko bindoon taqale ko bakkan la am yàllaa ko bindoon taqale nga ak nit ki kenn mësu dégg président Macky Sall tekki dërëm bi lu ñaaw yow nga ne borom xam-xam nga yàlla may na la lu nekk ci àddina am nga lu ne ci àddina réew mi sa réew la kenn ëppaliwu lu ci kii jël def la luy premier ministre euh, ci réew ki desalatu la dara waaye moom rek du doom ci réew mi moom dafa war a jël étape <coughs> bu mu liggéey wàcc keneen jël étape liggéey noonu la réew di doxee waaye maa far nekk pour toujours loolu amul ah, fenn. waaw mais euh, làngee nga yéen ñi politique. ko mel ni moom. Ah. du référence kii ah, dafa xarab am Macky Sall wala ku mel ni euh, kii Sall comment dirais je. Thierno Sall <laughs> xam nga xam tamit xam nga mm. nga. defi xam nañ ne ay noonu la. El Hadj Malick. Mm. am réew la ñu yor. Mm. il faut tamit ngeen comprendre ne président Macky Sall tey mm. yow mii. Mm. lu la président Macky Sall defal def mm. lu ma dara. waaw dama la jox exemple. ndax gis nga lii sa lii day bëgg réew mii ak xam kuy Macky Sall xam xalaat ak yéene bi mu am. moo tax ma koy defal président Macky Sall defal na dara ndax yóbbu na la au conseil des collectivités euh, ok léegi su gisee ma la deful ma dara. Mm-hmm. Euh, <coughs> ku xam Malick Guèye ci Sénégal xam suma poids ci Sénégal xam lu ma liggéeyal ci Sénégal man dama liggéey ci Sénégal. ñoom ñiy wax nii ñëpp kenn ñi mu ci jàkkaarloo ak man taabar rond ñu dem ci li njëriñ Sénégal amul man mi wax ak yow nii dama liggéey Latmingué gi nga ma tuddee noonu El Hadj Malick Latmingué bi may def politique Latmingué booba Latmingué dëkku àll rek la woon amul yoon amul courant amul ndox amul dara bëgg Latmingué ak bëgg fi ma dëkk ak bëgg sama réew loolu moo tax ma uti ba am lu jege ñaari milliards. ñoo def ko tali bu ñuul kuk ca Lat Mingué état def fa tali Lat Mingué maa ko fa def uutiwaat ba indi forage sama dëkk état def fa forage sama dëkk maa ko defar rojo laay waxee maa fay sama xaalis tali baa ngi nekk un milliard quatre cent vingt millions forage baa ngi nekk deux cent quarante neuf millions ma ñëw jaay sama kër def adduction d'eau forage bi forage baa ngi pare deux mille deux mille deux ba kenn naanu ci ndox parce que amoon adduction ba 2007 biñ may dugalee ci liste campagne list député fu ma dugg ñu naan ma ndox ndox ma ñëw Dakar guy jaay sama kër bu nekkoon ñaari tali dem def suma addu sondoo lan mi ngi yëpp ñëppay naan bon Macky Sall ñu ne jox na Malick Guèye lan. ñu ne defal na Malick Guèye conseil culturel. Ah ah, ah ah loolu xoolal attends dafa am loo xam ne euh, dafa am loo ah, loo xam ne xoolal. Euh, du du change du defal. parce que Macky Sall xam na ne man. moom xam na ne li may fay. moom xam na ne li may fay am naa yéene fukkam teg ko ci jox ko nit ñi moom président Macky Sall xam ne loolu réew mi ma toog nii teg naa ci kalaay bopp Makka cinq cent dix-huit personnes à la Mecque Sine Saalum nga ma dëkk ku dul Baye Niass ëppale ma Trondoor Sine Saalum maa ngi deux cent dix-neuf Trondoor. Trondoor Trondoor maa ngi yor deux cent dix-neuf. ñu ñu la ma tuddee. billet Màkka joxe naa ci cent dix huit ci télé rajo lay waxee ñoo xam ne ñu ëpp tey ñu ànd ak moom ñu ànd moom mën naa ci lim ñu bari ñoo xam ne seen ndey wala seen bàyyi wala maa leen njëkk a may billet Màkka. kon naa ñu ànd ak moom. dangay ngay firndeel daal guñ laa bëgg réew mi bon gu non non non non dama ne euh, Sine Saalum nga ma dëkk benn nit mënu koo gañe ci parti te àndoog ma liggéey. Macky moom may waxal xam ne ki dara léegi foo teg fu ma ci liggéey ñoom xamul tax nangu ma leen ay milliards lañ leen di kontal ak ay cité ak ak ay sato moo tax nangu ma leen ñoom ñi ma tudd ñi ñëpp ku ne xam nga may kan sëriñ bi président Macky Sall bi muy nekk ministre ci nguur Wade ci lay nekk conseil spécial ci nguur Wade maa moom ñu bokk benn maam comme directeur Macky Sall ñëw jiite Fatick ma ñëw jiite Kaolack comme président fédération départementale Macky Sall nekk député ñu bokk benn assemblée nationale ma ak moom neel président Macky Sall joxul ma sama cër boo ko waxee ànd naa ci loolu la ñëpp wax te loolu xoolal man ruus naa sax ñu may présenté comme conseil de collectivité territoriale ruus naa loolu sax du ma ko tudd fenn nit ñi moo koy waxee du ma ko wax mu suma tudd parce que xoolal loolu du suma cër. lu tax ñi ma jox ay DC ak i ministre suma dàll yi attanuñ ko ci réew mi. kon li ma ko defal li ma ko defal moom président Macky Sall ñoo ñu def li ko genn wàll gi genn wàll gi genn wàll gi kere bi ma ooyee pour ma ànd ak moom dama ko ne ànd naa yow ngir ñeent mhm. ànd naa ak yow ngir yow doomu Sine Saalum nga sa jabar doomu Sine Saalum mhm. di première dame président sama Saalum doomu Sine Saalum premier ministre doomu Sine te dañoo war a relever le défi Sine Saalum bu ne la teg la fii ak li ma li ma lépp dëkk Sine Saalum ma lay xeex warut ma su nekkee bëgg naa Saalum naa ñëw ànd ak yow pour ñu relever le défi Sine Saalum lii moo tax ma ànd jox la sa cër. fayul naar bi xoromam. <coughs> en tout cas su ko defee it. non fay na naar bi xoromam wala fayul naar bi xoromam. waaw euh, man man man ànduma moom sa pour mu jox ma. mais fay na naar bi xoromam wala fayul naar bi xoromam waaye àndoon Sine ñi ànd ak man nag ñi ànd ak man ndax foo ma dëkk ci laaj mi ngi googu ma dëkk local yi nga xam ne moo passé ba maire ba fa nekk nekk fa tey ñoom coalition ñoo demoon wuuti am neuf conseils ci proportionnel mu ñëw am huit conseils may seule personne bu génn fa nga dëkk yow kenn jondog nga dem nekkoon ci parti poir daanu dem uti ko am neuf conseils am huit conseils amul Sine Saloum ba mu daj kapp amu fa waaye terewul li taxoon ma ànd ak moom mooy Sine Saalum baax. mais yow da est-ce que ne président dafa defal ñoo xamante ni tey li nga daj si moom ñooñu dajuñ ko si moom. de moom xam na ko moom xam ne poids na ko. non dama ne. Ah. est am na ñoo xamante ni tey cër bi leen Macky Sall jox. Hmm. yow yaa ko gën a mérito ndax li nga daj moom dajuluñ ko Macky Sall déedéet man sama du ma wax loolu xam ko waral. Hmm. mérite maanaam cër yàlla koy joxe. indil fadla bi laa yuti ma da Macky mën a bëgg teel a noonu laa gëmee yàlla moo tax ma muñ ko moo tax moo tax ma muñ li ma jox mu néew mu bari mu baax mu bon kenn déggul suma xarab ci moom parce que su ma su ma ko xarabee. mais dafa mel da koo xeeb. attends dafay indi du ne maanaam wax naa la ci njëkk ne la séddale ba may cër da gis ku lekkul wàllam wax naa la lii yëpp ma koy défendre ah mbokkam tuddul mbokkam boppam la tudd doomam tuddul doomam ndax du moom la tudd mbokkam tuddul mbokkam boppam la tudd doomam tuddul doomam ndax du moom la tudd. lii lay wax de. Mhm. moom ci boppam moom président Macky xam na ne ñun Saloum ñu gënal lu ñu mën a am moom xam na moom xamal na ko boppam xam na sin Saloum ku ma ku ko laal rek laal ma ko laal rek jot ma li ma yaakaaroon it ba ànd moom jéem na ci nag lu bari moo tax sikkuma ko ci ndax ci wàllu mbay ma def na fa lu rëy ci wàllu mbay ndax man usine bu bees ak machine bu bees bu ji gerte. ci nguuru Macky Sall laa ko gisee mais fi mu la yóbbu nii tamit dañoo gis ne daf laa faa yéex a yóbbu aussi peut-être ba <laughs> waaw moo tax ma ne la léegi léegi léegi mandat mu njëkk bi lan la defal si mandat mu njëkk bi dara dara deflu ma dara waaye mandat mu njëkk bi waaye nag est-ce que sàkk woon nga ko ah, xam nga euh, wax dëgg yàlla jox ma est-ce que sàkk woon nga ko waaw xam nga sama xam nga deret yu bëri mënuñoo laaj mm-hmm. mais est-ce que sàkk woon nga ko non ku def dawaar kay war nga xam ne la am na am na ku def dawaar am na am na droit mm-hmm. ah ku def dawaar am na droit mm-hmm. oui oui. mais mais oui mais manque de considération kon bu la jàppale nga ko ba mu falu. ba la dara c'est un premier mandat li ma waxoon ci suma meeting bi may clôture. ca ca Ndiédiène moom laa koy waxaat heure bu nekk. Euh, moom bu ñu jàppee ñun jàpp nañ ko ndax suñu doom la bu ñu jàppul jàpp nañ ko ndax ñun suñu doom la waxoon naa la ci gannaaw ne la mbokkam tuddul mbokkam boppam la. mais lu tax saa nga ne defaloo la dara nag. donc euh, non maanaam defal dara boo ne dafa defal dara maanaam personnellement yow El Hadj Malick Guèye Lat Mbengue. Euh, xam nga El Hadj Malick Guèye Lat Mbengue du turu Macky Sall ko fa yóbbu Macky Sall dafa ñëw fekk El Hadj Malick Guèye nekk El Hadj Malick Guèye Lat Mbengue jox loolu la war a jox waaye warut jox jëmm ji jëmm ji amul solo li am solo mooy waa ji kan la ak waa ji lan la ak waa ji lu mu def pour Sénégal miritam ci Sénégal lan la wax naa la ne. est-ce xam na loolu ku mën a génn ci dëkk est-ce que xam na loolu. xam na ko parce que moom ko fal moom président Macky Sall. d'accord léegi bon li am rek mooy. Ah. yëf daal léegi danañ ñëwaat foofu. Euh, lan nga léegi danañ ñëwaat foofu léegi léegi léegi muñ daal yàlla baax na. Ah, ah, d'accord léegi danañ ci euh, ñëw. Mm-hmm. <laughs> mais ñoo ngi woon. Mm. ci li nga xamante ni tey yéen. Mm. ndax euh, boo dee da ànd ak nit ki. Mm. mu jox la ba tànk. ba yàlla dogal. àndatu leen. loolu est-ce que dafay tekki ne. bu dee tey ma ngi def ay rëq-rëq. wala ay scandale mm-hmm. wala ay tojaange mm-hmm. wala ay contrat yu baaxul ci réew mi mm-hmm. yow da ngaa war a noppi ndax liñ gis ci Sénégal ok muy waaw dafa bëri ñoo xam ne ñu ngi àndoon moom tey man ñi may wax ñoom xam nañu ma ñoom kenn ñu mucc tontu man man kenn du ma tontu xam nga lu ko waral man lu may wax lu ne c'est palpable lu du ma teg loxo la ñi àndoon Macky Sall ñëpp di ko xarab ñoom ñëpp xam nañ sama bundu kër te xaw ma seen bundu kër ñoom ñëpp laa wax nag boo tuddee ma ne la ak keneen ñoom ñëpp ma kenn dama ne ñooñu joxuñ maanaam delluñ Macky Sall cër ndax ñooñu waruñoo waruñ xolam waruñoo jiite sa fukki nit ba lañ jox benn responsabilité bi attanuñ ko xamuñ ko koo xam ne fukki junni sa dund sa dund ba nga dund jeex téeméer junni bu mat mas ko téye sa loxo ñu xëy di jox ñu xamoo sa li loolu ah ñu xëy di la jox euh, juróomi ne par mois. Mhm. ah kooku bu nekkee ne maanaam xamoo dara dof ngay doon. Mhm. loolu moo a lii yëpp am président Macky Sall moom loo ci mënta dégg ay àndandooram moom jàppale na leen képp ku commencé teral ci ñoom ku commencé jàppalanteeg moom ci moom fay na la ci ñoom. Mhm. ci ñoom fay na la ko. d' accord ba nangu ko waaye nag ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo jor doon jox. d' accord mais laaj laaj mbeng dafa am loo xam ne. dafa jaaxal sénégalais yi. mooy président Macky Sall. Mm. décision yi nga xamante ni jëlaat na ko bërki démb. maanaam transport bi. Mm. nee nañ woon oto yi li muy def sax léegi yokkaat nañ ko. yokkaat nañ ko transport biir dëkk bi. Mm. taxi bi la ñett nit la ñaar nit la ñu waxoon léegi nee nañ ko delluwaatal fa nga nekkoon. école yi nee nañ ubbi waat leen. marché yi léegi nee leen wàng. waaw te luuma yi. teel gën a yokku ubbi waleen teel feebar gën a yokku. te tey la feebar bi gën a yokku. loolu loolu fii yow est ce que yu jaaxuloo El Hadj xam nga wax bu wax bu wax bu bëri te amul euh, maanaam li arab wax bu dul jeex te amul njëriñ wax bu gàtt te am njëriñ ko gën moo tax moom moo tax ma te la koy moo tax ma la yëgalee baat yi réew la yore ndeysaan dama mos a toog ak euh, président Wade ñuy waxtaan ma ak moom euh, ci palais bi mën man ko président kere bi ngay xëccoo kere bi nga toogee fii am na fan yu bëri xanaa nelawoo de mënuma yoo xanaa da nga fay toog xanaa yoo xanaa da maa toppoon man ne ko al nga wax loolu mënuma dëgg la li ngay laaj gis nga réew boo koy laaj doo ko xam waaye boo yeggee ba ci réew boo yeggee ba ci réew ba xool réew di nga xam ne réew yombul. loo bëgg a wax foofu. maanaam réew moo jafe yore. te président li muy xam yow doo ko xam koo xam ne si émission bi nga bëgg a def nii émission bi ñuy def nii tey bi nga ko waajee dégg na ko xam na ko jënd ci ay kër jënd ci ay papier waaye ju bëri na looy def danga xamul lam def rek moo tax nga ko te mënu la koo wax ndax réew la yore li muy xam moo la ëpp xam-xam ëpp ma xam-xam te ndam rek la bëgg ci li nga ko jiital bu bëri na lu muy def man mi xamut mën naa caa tontu mën naa caay wax. waaye moom mi nga xam ne moo tiim lépp de lépp représenté yàlla ci suuf sii sénégalais bu ne mu xam sa kër la fa ne ah, sénégalais bu ne fa xëy suuf mu xam ko sa téléphone bi su ko neexee xoola li nga waxoon daaw daaj yooyu toog di ko déglu yàlla may ko martaba boobu waaye jooju bëri na lu mu def mu naam da ko xamul rek moo tax ko waaye soo ko xamul doo ci gàttal daal réew mooy mbir moo xam ne mbir mu doy waar la du lu nit mën a nettali opposition bi mën ci mbedd mi di wax waaye Macky Sall mënul loolu d'accord mais. Euh, waaye nag yi muy dugal lépp nag pour bëgg mu baax dong tax ku ci am daal xalaat ci ñoom ñooñu man la ma di dénk ku ci mel ni soo ko may gërëm Idrissa Seck di ko di ko sant ah wax ju bon ju ne dama ko daan dégg ci moom waaye bés mooy setal nit bés mooy setal nit lii moo setal Idrissa Seck sama côté man dama wax ne bépp doomu aadama boo xam ne waxoo ne Idrissa Seck bëggul réew mi yow yaa bëggul réew mi koo xam ne da nga ne Idrissa Seck noonu Macky Sall yow yaay noonu Macky Sall képp koo xam ne Idrissa Seck noonu Sénégal yooyu noonu Sénégal Idrissa Seck c'est une meilleure personne personne boo xam ne incontournable intouchable ci qualité ci jikko ci man-man ci xam-xam ci compétence ci capacité ci expérience lépp mag ko jox xam nga dama jox ko mooy ah jox ko mooy mhm. bi ko président Macky Sall wooyee te moo toppoon nekk numéro deux mënoon naa mel ni Sonko xarab waaye daf ko uyu ji ànd kook ree ndeysaan ànd kook ree gu mat sëkk mu leer ko ne kii am na am na xol bu yéene bu rafet pour auji ki ko woo donc rakam la donc moo ko faloon donc tey loolu lépp ndeysaan conséquence bu réy moo tax ma gërëm ko mhm. ku mel ni Sonko boo gisee ma xarab ko mhm. koo xam ne mën ngaa bind boo bindee ñu tontu la mën ngaa téléphone boo téléphone jot boo ñaanee am ma ne wax ci mbedd yéebaane ak information du benn Sonko da doon yéebaane waaye joxul information léegi euh, El Hadji Lat Mbengue euh, moom lañ invité seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM mhm. euh, gis nañ li nga xamante ni mooy mbirum jumaa yi ak jàkka yi bërëb bu jaamukaay yàlla yi mm-hmm. gis nañ ne ñu baree bari doon nañ sàkku mm-hmm. ñu tijji jumaa yi ak jàkka ji mm-hmm. jàkk yi la xew leew na ñaseen yëngoo ko gis nga ko fan yi bi président jëlee dogal na ñu ubbiwaat ko gis nañ ñoo xamante ni ba léegi ubbeeguñ gis ñoo xamante ni ubbi nañ euh, lan moo ci sa xalaat lii sama xalaat mooy ok loolu lay àddina xam nga ñëpp diin la euh, ñi ñëpp diin bëgg sëñ bi si man ku ko bëgg gën a bëgg diina kenn waa ma ne xalifa ñ gën a bëgg kenn sotti ci rek ak def ci la fee benn la ki bañ li mu bëgg moo rek mooy maanaam dimbale réew mi dimbale lislaam islaam it diin la joo xam dafa ñëwee jàmm salaam mhm. mooy islaam salaam la tudd islaam salaam la lépp lu indi jàmm islaam ci lu lay dox gëm yàlla yomb na gëm bés pénc yomb na waaye gëm dogal nag moo jëfee gëm dogal moo jafe dogal moo tax ñuy wax imaan ngëm soo xamee ne lii lo loreef la mm-hmm. jigante bi loreef la màkkatal mu ñoo gën a ñu ne ñoo gën a bëgg euh, diina ndax ñu alxuraan dafa ci ñun ndax alxuraan dafa ci suñu réew foo alxuraan wàcc du màkka tu kaaba mooy suñu xibla ñoom bu ñu demee bay ay aj bokk ba di ba di ngir danger bi nga xam ne dajale ba mën na ko jur islam daf cay ànd. Hmm. islam daf cay ànd. d' accord mais mais yonent bi daf ñu dénkoon ne. Hmm. daf ñu waxoon ay baat moom Mouhamed salawaatullaahi wa salaamu alayhi daf ne isa taxeer zamanu taxeer maa aw bu jamono changé changé la ànd ak jamono jamono changé na lu tax mu changé mooy dajee bi mën naa indi tey loreef ci nit ki te nag laa dara wala diraar bu lor nit ki waaye nit ki bu mu la lor. waaw mais ja loolu lañ pratiquer rek tax ñu ne jàkka yi dëgg la bu ñu ko ubbi. dëgg la lu tax bu ñu ko ko ci bakkan dañ ko teg ci li xam ne warugar la ci nit ki ñu himaayee ko maanaam nga protéger maanaam tey président Macky Sall ak sëriñ si yëpp li bi parce que bu ñu leen bu ñu santaane ñu koo xam ne boo waxee ñu déglu la boo santaane nga mais mais bi président jël. Hmm. ak ni kilifa diine yi doxalee bañ a ubbi jumaa yi ak jàkk yi ak église bi. Hmm. est-ce que loolu tamit du ab signal foor boo xam ne ñoom jox nañ ko ko. jox nañ ko président président que ne xel nanguwut école di ubbi le 2 mars. déedéet le 2 juin moo joxe signal foor président moo joxe signal fort mënuñ jox cër. ndeysaan moom ni kuy dundu Sénégal la ni kuy dundu kilifa diini yi la mu kuy dundu borom xam-xam yi la kuy dundu ñëpp la moo tax mu oo ñëpp na la ñu ànd waxtaan président Macky Sall loolu yëpp li muy signifié mooy ndeysaan du ragal oh xam nga ne tey. mais ñenn ñi ne pression la. attends amul benn pression bu ko war a mën a jaaxal moom amul fen amul fen amul fen du pression sociale wala amul fen su ko neexoon ne benn jàkka du ubbi benn jàkka du ubbi ak koo mën a doon ak loo man a doon. ak koo mën a doon ak loo mën a doon <laughs> ah walaahuma likul mulku tuuti mulku man tasaa xanaa yéen gëmuñ loolu. yàlla yàlla moom moom nguur ci loxoom la nekk moo ko jox ku ko neex moo ko ci nguur ku ko neex moom yàlla. kon su ko neexoon loolu amul xanaa kay neel bugg kon jàpp nga daal du pression. dee du pression bugg jàmm la ndeysaan ak encore am yërmande gu mu am ci nit ki li mu bëgg. parce que bëgg-bëgg dafay dem ba nekk ni que da nekk dem ba. mais mais ah, da dem ba bëgg-bëgg bi. waaw mais sonal la ak imanité ak ngëm. mais mais tamit euh, mais réew mi mais tamit mën naa rey boppam sax tudd. waaw mais Lat Mbengue euh, El Hadj Malick Gueye Lat Mbengue mhm. réew mi ni mu meloon ni tamit est-ce que doon benn bombe sociale boo xamante ni tey su Macky Sall euh, déconfiné wutoon nit ñi rek. Hmm. problème mën naa am ndax ñu baree bari seen situation doon na lu nekk lu critique waaw ok léegi lu ci nekk rek xam nga réew yàlla du ko jox nit te du waayam. Hmm. Ablaye Wade bi ma ooyee ci pale bi naa bëgg ñu ànd mag ma dama ko dana àndee ngir ñett mu noo ba nag ban ma ne ko yow mag nga mag dafa jege yàlla parce que maliki naasi ilaahi naasi lee la wax. Hmm. maay buuroo xam baa ne maay yàllaay mag nii ban ma wóoru mag te yow mag nga beneen bi ki topp mooy sees bi nga toog bu doon jaay mën a jënd nga ko ngi coono bi nga ci def nit lu mu sonn bu ko amee du ko fooyee moo óolu la ci ngir ñaar yooyu beneen bi ki des yaa sa moroom bu xëccoo yàlla éliminer leen fal la bon yaa gën yalla jaamam yii dal naa fonk bugg leen xalaqa insaanun fi ahsani taqwiim la wax bon du jël mukk laa dina koo xam ne dañ di fitnaal tegu seen kaw déedéet bon yàlla mi la tànn nag yow mhm. te ñu ngi doon xëccoon yàlla yàlla ma ne ko ma gëm yàlla man gëm dogal ba tey ñu ma nekk ci dogal bi gëm dogal bi ma mais mesures yi mais mesures yi mu deltu ginnaaw surtout marché yeeg transport bi est ce que du demutoon ba nga xam ne tey <coughs> Sénégal yi tolloon nañ foo xam ne mënatuñ koo supporter ma ne dof moo du deltu gannaaw dof dof rek moo du deltu gannaaw waaye nii da nga war a deltu gannaaw nii da nga war a arrière ah, ah ok d'accord nga si arrière gi waaw war na war na parce que ay nit la jiite ay nit la jiite te nit ñi mu jiite gënul leen te ñu jiite ëpp leen xel nga yàllaa ko jox nel boobu rek waaye du tere mu considéré leen considéré seen soo ak seen bëgg-bëgg ak seen humanité lu dong la waru gar la ci njiit mu arrière kooku ñàmmaar lay signifié mhm. ah xoolal xoolal gis nga mo euh, biñ daajee mu amee maa hori jàll nekk ko kan mooy jàmbaar waxul kay rey ñaa ba nga ko laajee rijaal góor mooy ne rijaal wala si sax xuddib yum lig naf sowu hada wa rijaal koo xam ne heure su mere dafa am maîtrise koo koy jàmbaar waaye jàmbaar nekkul ne ku rey nit ka rey nit ku ne mën na ko xoolal waaye loolu taxu ñu tudd jàmbaar bon li mu def yëfi jàmbaar la li mu def yëfi courage la li mu def. waaw mais mais mais ñenn ñi dañ koo gis ne dafa wax ne ñenn ñi dañ koo gis ne Macky Sall daal dafa dafa jekk-jekk tay la aw askanam nu golo xam boote doomam. ku xool ku xam Macky Sall démb nga xool ko parce que démb ki télé bi ah loo soxor soxor soxor sa yaram war naa mun a daw nga xam ne kii mu ngi dund lay dund yow ndax dund laa tax. ni mu triste ci kanamam ni mu triste ci léppam ba ci kàddum ba ci waxam. dafa dafa am taylewul Sénégalais yi. dafa dafa am lu golo xam boote du golom lu golo xam boote doomam. dama ne. Hmm. loolu loolu su ko doon def mesures yëpp du ko génnee. nit ki jën koy atte ci jëfam waaye doo ko atte ci waxam xoolal jëf ji man daal li wax daal mooy. ñu ñaana ko yàlla may ko jàmm ndax mooy dawal gaal gi te bu gaal gi suuxu ñëpp ñu suux ñaanal ko yàlla may ko jàmm te associé ko jàppale ko ci li nga xam ne moom la tëral yaakaar na Sénégal ëllëg dina ci am ndam d'accord fi ñuy jeexalee mbokk yi yéen a ngi déglu Rewmi FM yow yaa ngi dëkk ci département bu euh, Kaolack mhm. lan mooy sa relation ak euh, ñi nekk foofu ñoom Moustapha Niass de euh, Aminata Touré Aminata Touré ak ñiy way politique yi nekk foofu Aminata Touré ku ma ko tudd ci rajo du ma la tontu turam yi bugguma sa ku ma ko tudd kan si moom Aminata Touré lu tax bugguma sa ku ma ko tudd xam nga dafa am ñetti ñu jaaxal Mohamed dafa am ñetti ñu ko jaaxal. kan si dafa am ñetti nit ñu jaaxal Mohamed. Mohamed waaw nee na ñetti ñi rek la mënta rëbb. moom la mënta moom la mënta romb. yawmal qiyaama ñu ne ko ban ak ban mu isa da kasaba isa wax da axlafa suntumi na xaana koo xam ne su waxtaanee wuru su waxtaanee fen bu doolee wuruj bu la yaakaar nga trahir moo tax bugguma ku mu turu turu mu mi turee dama ko buggul. lan lan mooy si waaw xamatoo ah, bugguma ko may. du référence man ko du référence bugguma ko mu ko tudd am na nag ñoo ànd ak président Macky Sall ñoo xam ne si si Sine Saloum gërëm naa leen sant naa leen daanaka si teel tuuti rek. ku bu Boun Abdallah Dionne gërëm naa ko sant naa ko gëm gëm gëm président ak jàppale gim ko jàppale ak jeex gi jeex ci ma moo tax ñu ne amul fayda amul fayda ak dof mooy jeexal mbir koo dégg ñu ne mbir du wax du jeex mukk tàggoo ca ndof ga dafa baax ba dof wala dafa añaan ba dof wala dafa ñàkk fayda ba dof ndof moom mooy santu képp koo xam ne maanaam euh, jëf la. Mhm. bon bu bunaam ba gërëm naa ko bu baax mun bu Ablaye joon ci jàppale gi mu jàppale président ànd ko yéene ànd ko xol bu rafet ànd ko déggal ko jubal ko am na ñu ma gërëm ci euh, ci foofu bu baax euh, Kaolack gis ma Moustapha Niass fenn ci affaire bi moo tax ko gërëm. dégguma saako ceeb bu mu fa Moustapha Niass dégguma ko. ci ci ci crise bi. waaw ko Moustapha Niass sama nijaay la. Mhm. keroog bi ko Ablaye Wade day wàccee mi ngi toog suma biir lal. su ma ko lal maa ngi wax ci rajo laay wax. Mhm. na ñëw demanti li ko. Mhm. kër bi ko Abdoulaye Wade wàccee bi nekk premier ministre. Mhm. boobu bu ñu ko wàccee su ma ko lal la toog fa la ko téléphone ba fekk Abdoulaye Wade wàccee ko. ker wax ne li bi ma ko bi ma ko ooyee lan nga bi fa ñëwee moo wax ci làmb ñoom bu nekkee Sine Saloum doomu guru la na xarit bi fekk na ko lan nga xarit bi guru bi. mbooloo moo ko pressionné ba Abdoulaye dàq ko ker la ko dàq bi ko def mu suma. léegi léegi la waxuma ko ngir xas ko waaye gisuma jëfam. gisuma benn kilo ceeb wala saako ceeb buñ ne mu Niass moo ko def Saalum par rapport li mu jiite ak li mu yore gisuma ko man man na mënu maa wax lu ma xamut. Mhm. beneen bi ki topp mooy euh, dina gërëm Aminta Tall ak Omar Youm. ñooñu luñ def. ñooñu billaahi wallaahi tallaahi barka alxuraan mosuma dugg kër Aminta Tall. barke sant Fatick. waaw mais jëf rek mais Amina Tall jëf attends attends mais Amina Tall mi dëkk Diourbel moom wax dëgg yàlla neewaa na nga dégg ku ne la moo fi def lii. ok man na maa ko gis man man maa ko gis man lu ma gis lay wax. Hmm. lépp loo xam ne maa ci weeru koo xam ne tuddal naa la fii tur ko te nekkul lu ma gis la weeru koor yadu ma fekk ci ko suuf maa la maa la gëñal loolu amul man du ma bëgg nit ba jox ko lu moomul waaye du ma bañ nit it ba xeñ ko lu moom Aminata Tall gàcce ngaraama Omar Youm gàcce nga la ma gërëm naa ko sant naa ko baax Jim Mamar Ba directeur APROSI gis naa liggéeyam Sall. Hmm. Moustapha Mamadou Moustapha Ba directeur finance gis naa liggéeyam Sall waaye Amine Touré gisuma ko Moustapha Niass gisuma ko Pape Demba bi tey gis naa liggéeyam Kaolack mboolem de mboolem commune bu nekk ci département Kaolack ku ci nekk sa deux tonnes ceeb jox na la ko ba commune bu département bu yëpp daj région bu yëpp Pape Demba bi tey dirigeant lañ lii nag wax mbaaxu jàmbur. wàññiwul sax mbaax dara. d'accord moo tax moo tax moo tax moo tax moo tax ma tudd ñii cité leen nommément waaye cité wu ma leen kat xoolal pour bëggul leen neex ñoom xam ne ne Malick Gueye du ray kenn gi nga Moustapha Ba mii. Mhm. barke Salatu Fatiha xaw ma biroom xaw ma këram barke Mouhamed Rasulullah Aminata Tall xaw ma këram. billaahi walaay talaay ji Momar Ba xaw ma biroom barke Mouhamed Rasulullah ah euh, Aminata Tall xaw ma këram barke Mouhamed Rasulullah Alioune Badara lii bu Koungheul billaahi walaay xaw ma këram. waaye gis naa taxawaay bu rafet ba mu def Koungheul man bi dama doon politique maag Ablaye Diak kër yoon benn moment tuddee ko dooleel Abdou. Mhm. foo ma tudd ci Sine Saloum. pôlu Sine Saloum mu njëkk bi pôle bi amul benn commune booy wàcc fekkuma fa sumay alaaji wala sumay aja wala suma torondoor amu fa. boo demee fa nga xam ne fa la Koungheul jeexee Idda Mouride maire ba maa koy Makka 2003 amandaw ca Idda Mouride ci Koungheul. léegi yow loo jiite loo jiite Sine loo fa jiitee gën lu tax ne ko fa maire wala dara waaw man euh, jombul nag jombul nag kenn ko am nga ambition amoo ambition nekk maire euh, euh, mun naa aw ma ko woon léegi nag am nga ko jombul ci kanam ci kanam addina ci kanam la nekk ci kanam la nekk actuellement tey man maa jiite prix mouvement suqali Sine Saloum ànd ak Sénégal man maa ko jiite d'accord bon li am solo daal mooy mhm. waxtu wi nit daal mhm. suy wax na wax lim xam soo gisee ma ne la mi wuture bëgguma ko ma ko tuddit dama xam ne liggéeyul réew mi liggéeyul président boppam rek ci la ne boppam rek moom mi Touré ci la ne maa ko wax moom xam na ci dara maa moom daan toog néegam ba une heure ci guddi xam na li ma ko wax xam na li ma ko man dana ne kenn du ma tontu wala wala bu kenn ci ñoom su am ñemewoo toog ak Malick Guèye ngeen jàkkaarloo waxuma nga yéen ay bande puy puy ci mbedd mi ñu ay saaga ak xas jox nañu ay cinquante mille trente mille ñu bind dina xas aw ma soxla ci xam nga li ma mooy la lu palpable lu nekk réalité man du ma nax mukk du ma jaay mukk ñett yi sama diine du ma ko jaay Macky Sall suma ma deret du ma ko jaay Macky Sall suma réew mi du ko jaay Macky saal waaye nag du ma xarab it kenn koo xam ne gis naa ne ku baax nga su gisee ma cité Idriss Seck jikko ma tax su gisee ma ma cité euh, Sonko jikko ma tax moo ko def. jërëjëf man ku def lu baax. ma wax ko jërëjëf lan nga waxtu wi ñoo ngi lay jaajëfal baax a baax. Mm. kon mbokk yi xam naa fi la ñu fas yéene tàggoo. Mm. Euh, waxtu wi jot na mm. ñu leen di jox dig daje Abdou Khadre moo nekkoon ci micro bi seen émission pencum réew mi la woon. ñu invité woon nag El Hadj Malick Gueye euh, Lat Mbengue ancien ancien député. jamono ji nag ma ngi au conseil des collectivités territoriales Adama Diallo moo nekkoon ci wàllu xarala gi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ba 15 heures jotee seen jëf ñu ngi balu àq nag ñëpp ah. képp koo xam ne yaa ngi ma doon dégg mun naa ma déranger ñu bari wala ma déranger kenn personne man déranger ni taxuma jóg li ma tax a jóg rek mooy dafa am maanaam nen bi ñu ko tojut di ñu ci omelette jërëjëf bon nañ fexe daal suñu réew mi ñu fexe li nga xam ne mooy njëriñ ñu wax ko li dul njëriñ ñu sànni ko laaj jërëjëf